jërë ngeen jëf mbas mi lu mu nekkee lu mu ci dolli rek yegg ci musiba mba bëkumba libération nañu makabar li mu tër lugam ci bakkan ci réew mi mi ngi bëgg a bari nekk rokaltine rek ñaari doomi aadama faatu nañu ci réew mi ci coronavirus ci diggante 6 heures 30 jàpp 23 heures ci ëllëg sa di ci talaata ji yeneen ñaari doomi aadama faatuwaat nañu ci coronavirus bi ci diggante 7 heures ci ngoon jàpp minuit moins 5 ñi covid 19 bi jël seen bakkan ci réew mi libération ne nañu ñoo ngi toll léegi ci fukki doomi aadama ak ñett ki ñu mujjee yëg ne coronavirus bi na ko ci këram la faatoo keroog talaata laata ci la faatu waaye démb ci àllarba ji bi ñu jotee résultat test yi ñu doon def ci moom ci la ñu amee tàkk bu wér ci ne coronavirus booy ko rey l'observateur nañu fukkeelu doomu aadama ak ñaar ak fukkeelu doomu aadama ak ñett yi faatu ci réew mi ndax coronavirus bi wane na ne corona bi bàyyul ko féete mag bàyyiwul ko féete ndaw faat na ca kees menn mag mu am téeméeri at yu manqué juróom-benn maanaam 94 ans faat na ci ndakaaru benn waxambaane bu toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar Vox Populi ne ko Eric ak boo la tudd fanweeri at ak juróom-ñaar kese la amoon moo di fukkeelu bakkan ak ñaar bi coronavirus bi yóbbu ci réew mi ba jógee moom dem si yàlla Eric ak boo Vox Populi xamal nañu ne am na yeneen i jàngoro yu bokkut ak coronavirus bi yu mu doon sooxaale semaine def na ko réanimation ci hôpital principal bu Ndakaaru ab webmaster la woon dëkkoon rëbës sonnoon loole ci xeex coronavirus bi le témoigné nañu loolee mu doon xeex moo ko far yóbbu mu di coronavirus bi mooy fukkeelu doomu aadama ak ñaar bi feetu ci réew mi ndax coronavirus mu di guléet bi mbiri tàmbale ak léegi réew mi à l'heure la covid bi di daw ci naka la ko te nañu démb am nañu téeméeri ak ñeent ñaari cas communautaire ci Sédhiou ak ci Médina Gounass la Sénégal nañu covid bi kay bés bu ñu xëyee dafay gën di tiitalaate téeméeri ak ñeent ñetti nit yu ci faatu lépp ci diiru benn fan maanaam 24 heures li am ci réew mi ndax coronavirus bi journal Source A moom àdduna bu tukki la ko jàppee axiru zaman la gis ne moom la mbiri di xeeñ La bi ab xaalis bi te xamul ci kan la ko jële xamul it fan la ko jële li dara jarul ci àdduna mooy li baara géey kilin oyil akub séetam Zeyna Seyna bu jën di dund léegi ko moom la xëye wax ñu ne muy baara gay ma doon takk jabar ak Zeyna xale bu jigéen bi ñu doon takk ak ñoom Alassane Baye ak ñoom ñaaxarañ loo ñoom ñëpp tey lañ leen di defeere ji ñu war a janoo ji ak procureur bi l'observateur ne ko dolli ci Adja Diallo ak Maria Mané di nday xale bu jigéen bi ñu doon takk ñu tekki jajji teere ji ci suur suwaate taxaw fa ubbil yéenekaay bi ndaw si sant Diallo dëkk Touba te ñu ne dafa soode woon jëkkëram wax na mu wax ci enquête ba moom la journal Source A fort nee na sottiwul jëkkër ji diw gu tàng ñulug ba mu tegoon la bàyyi ba mu sëgg di julli mu këpp ko ko te li tax mu def ko mooy bakkanam la doon rawale ndax jëkkër ji dafa tëj buntu kër gi rocc caabi ji ne ko su ma paree danaa la rey xale bu jigéen bi ne te su ma ko fa xaaroon bu pare noonee la koy defee ndax yàgg na ma fitnaal Source A nañoo ngir firndeel li mu doon wax moom xale bu jigéen bi dem na sax ba woon enquêteurs yi ay matt matt yu nekk ci digg ginnaawam yoo xam ne nee na jëkkëram moo ko ko matt